par exemple mais dàmboo di wàññi rek oto bi téer nañu ko rek ñu ne bon moom am na citoyen la jarul def conférence de presse jarul def dara na dem porter ji plainte une enquête sera ouverte na dem porter ji plainte mais faire de la je ne suis même pas convaincu par ça mais je euh, ne sais même pas précaution bi ngeen jël pour def enquête euh, dans euh, le supposé empoisonnement de Ousmane Sonko mënoon ngeen jël la même précaution au moins parce que aujourd'hui il m'est arrivé ma jéem a invité ñetti opposants ñoom ñëpp vous savez ce qu'ils me ah génn guddi bi léegi wóorul euh, kenn ki mu ne ma dañuy topp nit ñi euh, dañuy intimider nit ñi kenn ki mu ne non on peut m'agresser cest de s'emparer de la classe politique tax na ñu bari léegi boo leen waxee invitation. waaw léegi loolu ñoom seen wax jooju rek tënk ko da ko des vérités non waxuma ne c'est vérité ah, mais peut-être aussi que euh, le rôle de la ah, justice et de l'État c'est de rassurer tous les citoyens voilà. oui exactement et c'est pourquoi d'ailleurs nous devons continuer à respecter cette mais li indi débat bi c'est depuis quelques années où dañuy taxaw ñu ne procureur bi saaga ko te kenn du ci wax dara kenn du ci wax dara nga taxaw kanamu juge nga ne ko je ne te respecte pas fan la jógee c'est pas le pouvoir ça c'est pas nous c'est l'opposition et à chaque fois qu'une décision de justice est rendue par la justice mun arranger leen on ne parle pas on dit rien chaque fois que c'est bien on on on dit mais à chaque fois que la décision est contre vous on on décrit la on dénie la ñun ñëpp nous avons intérêt à protéger cette cette justice nous tous nous avons intérêt fii chaque jour ñu teg décision boo xam ne tu n'es pas d'accord mais c'est ça aussi la la vie on te dit de te pourvoir en appel si tu n'es pas d'accord et lorsque toutes les voies sont épuisées erga omnes comme disent les juristes c'est opposable à le monde et qu'on puisse l'accepter c'est difficile mais c'est ça un état de droit ah, c'est la soumission de tous euh, les